suuratu yusuf alayhi salaam aaya bi jëkk ci suuratu yusuf inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom mu ne alif laam raa moom moo xam lan la ca jublu tilka aayaatul kitaabil mubiin loolu day mooy màndarga téere bu leeral bi inna anzalnaahu qur'aanan arabiya ñun ñoo ko wàcce muy alqur'aan ci làmmiñu arab laallakum taaqiluun ngiree ngeen doon ñu xellu nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ñun ñooy nettali ci yow gën jaa rafet ci ay nettali bima awhaynaa ilayka haada alqur'aan ci li nga xam ne wahyu nañ ko ci yow mu nekk ci alquran ji wa in kunta min qablihi la min alghafilin doonte ne nekkoon nga jiitu alquran di ñëw nga bokkoon ci ñi ko sàggani doon ci ñi sàggan nettali bi mooy is qaala yuusufu li abi fàttalikol ba yuusufa di wax baayam ba yaa abati ay sama baay inni ra'aytu ahada ashra kawkaba man day gis naa fukki biddiw ak benn wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li saajidin gis naa it ñu ànd ak jant bi ak weer wi ma gis leen ñu nekk ñeel ma di ma sujuutal qaala yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik mu ne ko ay sama doom bul nettali mukk sa gént gi ci sa frère yi nga xam ne sa doomu bàyyi la fa yakiidu laka kayda kon de daañ fexe ñeel la ak fexe inna sheytaana lil insaani aduwu mubin ndax kat sheytaane ñeel na doomu aadama nekk noonam bu bir wa kadhalika yajtabika rabbuk naka nii day lala sa borom di tànni wa yuallimuka min ta'wil al ahadis di la xamalit la nga xam ne mooy firi ay wax ca wax yooyee mooy ay gént wa yutimmu ni'matahu alayk noon it lay matale ay xéewalam ci yow wa ala ali yaqub matal ko ci njabootug yaquba ga kama atammaha ala abawayka min qablu comme nim ko matale woon ca sa bàyye lu jiitu ibrahima wa ishaq muy ibrahima ak ishaq inna rabbaka alimun hakim sa borom yàlla aji xam la aji xereñe la lu nekk moo koy teg fam war a tege mi ngi noonu mbokk li mooy suratu yusuf alayhi salaam di saar woo xam ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala ubbee na ko lu mu ubbee lenn ci saari alquran te mooy alif lam ra la gën a jub mooy moo xam lam ca jublu donte ne fu mu ko waxe rek lam cay teg mooy bàkka alquran looloo tax lu bari ci mufassiruuna yi ñoom lañ koy firee mooy aayay alquran yi xuruf yi ngeen miin ci làmmiñu arab rek moo ko composé képp kon ku ko diingat na jël lettre yi indi lu mel ne alquran ca loolu kenn musu koo def ca kenn du ko def ba ila yumi din borom bi nag mu ne aayay téere baa ngoog aaya mooy mandarga buy wone mbir te bépp aaya ci alquran dana la won yàlla kenn la dana la won ne muhammad yonent yàlla la ndax moom rek moo ko mën a wax sunu boroom te yonent bi moo ko jottali téere la bu leer boo xam ne la ca nekk mooy day leeral lépp lu aju ci sa wàllu diine sa wàllu dund alquran leeral na ko lii nga war a gëm lii nga war a jukkowoo lii nga war a jëflante lii nga war a attewoo alquran bàyyiwul dara borom biin mu ne maa ko wàcce ci làmmiñu arab ngiree ngeen xellu yonent bi arab la woon ay arab la doon waxal ngir ngeen man koo dégg man koo comprendre ko nit ee yéen njaago yi nañu uti ku jàngi arab nettili ko ci làmmiñu njaago ngir ñu mën a dégg bambara yi naka noonu chinois yi naka noonu anglophone yi naka noonu mooy xeet bu nekk wares naa jël alquran leeral ko ci seen lammiñ ngir ñu xam lan la yàlla subhanahu wa taala wax filla alhamdu boo demoon madina gis sa fekk imprimerie bu mag boobu nga xam ne boori arabi saoudite yi def nañ ko fa ay million téere lañ cee génne kasaare ko ci ay lu ëpp nangami téeméeri làng ci àdduna bi yépp ngir doomu aadama yi xam lan la seen borom wax ak ñoom bu loolu passé saar bi ñu génn sunu borom wax nañu ci muy suratu Hud juróomi nettali muy qissa indi nañu nettali yonent yàlla nuux yonent yàlla huut yonent yàlla saalix yonent yàlla luut yonent yàlla shuaybu alayhim salaam qissa yooyu yépp di yu am solo yu jurit mën a waaroo waaye sunu borom mu ne kaay ma nettali nag la gën a rafet ci mboole mi nettali ahsanal qasas la gën a rafet ci mboole mi nettali dégg naa benn waay ci Sénégal bew lool ngir la nga xam ne judd na mbooloo topp ay way juróom mbooloo topp ko muy rouler dans des millions dans des quatre quatre taxaw naan saar bi gën a soof ci alxuraan muy suratu yusuf wal iyaazu billah mbokk loolu kufru la waxuñu nag ne yéeféer la waaye waxi yéeféer la wax wallahi waxi yéeféer la wax te bokk na it ci yeneen waxtaan mu ne man li ma gën a contre mooy ramyul jimaar dem màkk di sànni ay jàmmar je suis contre mbokk loolu ak kéefér la donte ne waxuñu ne yéeféer la ay wax yéeféer la wax li nga xam ne xissa bu sa borom nettali ndax julit am na droit wax daa soof waxuma nag lu yàlla ne mooy li gën a jub ci xissa yi nga xam ne moo gën a neex ci xissa alquran yi di xissa boo xam ne saar wi yépp la jël muy xissa bi gën a gudd ci alquran lu jege téeméeri aaya ak ñaar fukk ak nangam waxul lu dul ci histoire yusuf alayhi salaam ñi ngi nettali ci yow gën jaa rafet ci ay nettali et yow mi nga xam ne da nga mànd ci ay film yow mi mànd ci ay théâtre yow mi mànd ci ay aventure yow mi mànd ci ay livre fiction ngalawaay kaa ñu wax la nettali bi gën a sell bi gën a rafet bi gën a neex ñeel borom xel muy qissa yonent yàlla yusuf alayhi salaam loolu fan la ko yàlla jaarale mi ngi ko jaarale ci alquran bu tedd bi di téere bi gën a wér ci kaw suuf loo xam ne noonu lislaam yi ñoo ko nangu avant que julit ñi di nangu donte ne yow yonent yàlla bi nekkoon nga di sàggane alquran na am bi mu juddoo ba am 40 ans xamul benn xarf ci alquran xamul luy diine bu sell mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi ne ko wa wajadaka dallan fahada da ngaa sànku woon maa la jubal qissa bi lan la commencé benn yonent yàlla mi ngi nii di yanquba alayhi salaam moom la ñuy tuddee israil boo déggee bani israil mooy doomi yanquba ya am na ak njaboot njaboot googu jële na ko ci ñaari soxna yoo xam ne mag ak rakk lañu daganoon na ci shari'am mag ji jur na fukki doom rakk ji jur ñaari doom muy yusufa ak binyamin yuusufa boobu nga xam ne nekkoon na fukki fukkeelu doom ak benn bu yeneen ci yàlla yanquba daa di ñëw ci baayam benn bis fekk xaale la ñu ne mi ngi nekkoon entre dix ou douze ans ñëw na ko ah bàyyi day mbir dafa am man dama tëdd biig ci guddi ma gént jant bi weer bi ak fukki biddiw ak benn jóge kaw asamaan ñëw ba samay tànk sujuutal ma daal di delluwaat kaw asamaan loole bi mu ko waxee yanquba alayhi salaam yanquba kontaan waaye kontaan gi mu ànd ci ak tiit ndax yanquba boobu xam ne ne ne sunu borom yàlla digoon na ibrahima ak yonent danaa ko bàyyi ci sa famille wa jaalna fi zurriyatihi nubuwata wal kitab képp koy yonent gannaaw ibrahima ci njabootam nga bokk ba ila yawmi din ki ci mujjoon muy sunu yonente muhammad salallahu alayhi wa sallam ibrahima yonente la isxaq doomam yonente la mi ngi noonu yanquba bi ñuy wax yonente la léegi nag gannaaw moom kan mooy nar a nekk yonente ci njabootam xam ne ne kon yuusufa bii lay doon waaye nag mi ngi fekk ay magam yoo xam ne nii ñoo ko jiitu ci àdduna nekk fukki fukki ponkal léegi luy mbir mu ne ko ay sama doom sa gént gi bu ko nettali mukk sa frère yi loole ñu gisit na mbokk gént yonent bi alei salaam nee na ñett la gént boo xam ne doomu aadama li nekk sa xel ngay gént wala boog yaram bu tàng lay doon wala ay lumière yeeg yu kenn xam mën na ci juillet loo xam ne sa bakkan rek lay jóge beneen gént bi mooy bi jóge ci cheytaan nga xam ne moo lay tiital nga gis ay catastrophe gis ay yàqute loolu pour tiital la la tiisal la la yonent bi alei salaam mu ne gént bu mel noonu boo ko géntee bu ko wax kenn na nga ëf ñetti yoon sa côté càmmoñ mi ngi noonu ñetti yoon daa dina yàlla yàlla nag ma musal ci cheytaan musal ma ci ayu lii ma gént na sa xel dal gént bi du la lor abadan bu ko nettali kenn du la lor abadan ñetteelu gént bi mooy nga gént xéewal gu rëy di ñëw ci yow yonent bi alayhi salaam mu ne loolu ci yàlla la jóge bu ko nettali lu dul koo yëg ne bëgg na la bu ko nettali lu dul koo yëg ne bëgg na la loolee mbokk da ngay gis mooy ah la yanquba alayhi salaam wax na ko gént bi boo ko nettali sa frère yi ndax yëgoon na ne ne problème doomu bàyyi lu yàgg la ci àdduna gis ngeen yëgoon na ne ne ñii ah bëgguñu yonent yàlla yuusufa ak rakam ji te lu ci bari jigéen ñi ñoo koy gën a bari def mi ngi noonu mooy seen yaay ya lii bi nga xamee ne am na mu ne ko soo leen ko nettalee daañ la fexeel ay fexe ca cheytaane noonu doomu aadama la moo gaa yi sun bàyyi aadama ba mu nekk biir àjjana kan moo ko fa génne mooy cheytaan yonent yàlla aadama ñëw ci kaw suuf ak njabootam mu am ñaari doom haabil qaabil ñu jàppante sunu borom mu ne fa tuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al axar qaala la aqtulannaka am nañ problème ci lu bari ci borom xam-xam ñu ne jigéen moo waraloon problème bi ala kulli xaal sunu borom nee na bañ génnee sarax kenn ka laa nangul muy haabil qaabil nanguluñu ko mu ne frère bi danaa la rey lan la sunu borom wax fa zayyana lahu cheytaanu qatla axihi fa qatala cheytaani di ko buux di ko pompe ki da laa yeb te waru laa nangam ba mujj rey doomu ndeyam ba te ñoo bokk ndey ak baay mu rey ko ngir problème àdduna naka noonu it iñaan googu nga xam ne moo nekkoon ci yahudi moo tax ba gëmuñu sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax mu ne ko lii bu ko nettali mukk boo ko defee daañu la fexeel ay fexe ndax cheytaani noonu doomu aadama la léegi nag sama doom xamal ne yow yàlla tànn na la yàlla tànn na la te yàlla moo gën a xam kan lay tànn ci doomu aadama yi loolu it di benn mbir boo xam ne war nañ cay bàyyi xel mbokk sunu njaboot ñépp lañu war a bëgg ñépp lañu war a fonk juróomeeli doom juróom benneeli doom wallahi yéen ñi nga xam ne di ngeen di liggéeyal occident waxu leen dëgg njaboot gi bu bare dalay lor dalay nangam loolu waxuñu dëgg yeneen ci yàlla yuusufa moo nekkoon onzième doom yeneen ci yàlla yanquub ca mooy ka nga xam ne moo indi barke ak xéewal ci kër ga mi ngi noonu nii la la sa borom tànnee gannaaw ba ngir jàngal nu ñuy firee ay gént nu ñuy firee ay gént kon mbokk gént ndekete mën nañ koo firi mais kan moo ko mën a firi mooy koo xam ne yàlla subhanahu wa taala da ko ko xamal doonte ne bokk na lu yàlla nattoo tey jii réew mu mel na Sénégal da ngay gis rajo yu bëree bëri am na benn waay bu fa boof gars yi acca téléphone 628 nangam nangam vocal pour lan pour mu firil leen ay gént kenn ko dama gént mbaam mu may wéq mu ne ko waaw nangam nangam nga war a def sarxel nangam ak nangam ak nangam kenn dama gént man ñu may dóor ay kuur mu ne ko waaw defal na mbokk loolu di lekk xaalisu nit ñi ci no ci neen loolee mbokk erreur la seen vocal yooyu ñuy def foo dégg 628 na ngeen ci woote ku ci mas a dugg xam nga loolu man ngaa woote 2000 doo dugg ci émission bi bal 5000 doo dugg ci émission bi ñuy dajale alal nit ñi di ko lekk ci neen waaye mbokk nit koo xam ne gisoo ko xamoo ko allo téléphone dama gént nangam nangam rek nga wax ko avenir am wax ko lan lay def ay sarax yu muy génne ba loolu réaliser wu mbokk loolu julit bul dugg ci loolu abadan amma yusuf alayhi salaam yow day sa borom dana la jàngal nu ñuy firee ay gént te yi gën a mottali ay xéewalam ci yow xéewal gi gën a mag bu yàlla di defal doomu aadama mooy mu defal ko yonent ki ci mujjoon mooy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent dootu ñëw gannaawam ca moom dootu ñëw gannaaw ba mu faatoo mi ngi noonu nii mooy li nga xamee ne sunu borom mottali na xéewal yi ci yow noonu it la ko defale famille yanquuba ndax famille bu yonent gënn mbokk loolu teraanga famille ba yépp la mi ngi noonu gis ngeen arab yi ni yonent yàlla nekkee teraanga ñel leen gis ngeen banu haashim nga xam ne ñooy shérif yooyu nga xam ne adduna bi yépp leen fonk war leen di teral lu ko waral parce que yonent bi moo génn si ñoom loolee kon nii la yàlla mottalee ay xéewal ci yow mottale ko ci njabooti yanquuba nam ko mottalee woon sa bàyyi ya jiitu kon ndekete mbokk maam bàyyi la waaye sëtit doom la mi ngi noonu su ko defee bokk na xéewal gu yàlla di defal doom mooy mu may ko baay bu baax wala may ko maam ju baax bokk na lu yàlla di defal maam mu may ko doom ju baax wala sët bu baax loolu lépp ay xéewal la moo tax sunu borom wax ñu ne wa jaala lakum min azwajikum banina wa xafada moo leen defal ci seen soxna yi ay doom ak i sët mi ngi noonu looloo tax ba tey jii nit ki bu dee woon bàyyiwul doom bu góor doom bu góor booba bu bàyyee sët bu doom beneen doom bu góor muy sëtam bu góor kooku mooy donn la nga xam ne moom la doom ja waroon a donn sunu borom yàlla nag mu ni yanquba teg ci na ko mooy ki xam ca mooy ki xereñe lu nekk moo xam fu mu ko war a tege donte ne am naa fukki doom ak ñaar waaye xam na ne yow mii yaa mérito nekk yonent yàlla te wallahi boo liiree xissa ba bam jeex wala jàng xissa ba mu jeex gis dal gi yusufa àndal ak jéggale gi yusufa àndal da nga xam ne kii rek yeyoo woon nekk yonent yàlla waaye boo xoolee fi frère am yi jaar ak moom da nga xam ne ñooñu yeyewuñu woon nekk yonent yàlla ndax sa borom yàlla alimun hakim mi ngi noonu
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
sunu borom jalla wa ala mu ne لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نكنا تي يوسف أك دوم فريرم يدي أي كوتيف نيل نيل لك كوتيف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا جمن بني وخني يوسف أك دوم ديم جيدي ñoo gën a sopp ca sunu bay ci ñun wa nahnu usba te ñun mbooloo mu bari lañu inna abana la fi dalalin mubin sunu bàyyi daal mi ngi ci réer gu bir uqtulu yusuf rey leen yusufa aw taraxuuhu ardan wala sànni leen ko ci ab suuf yaxlu lakum wajhu abikum su ko defee nag mu wéet ñeen leen seen kanamu baay wa takunu min baadihi qawman salihin gannaaw ba nag ngeen wëlbatiku nekk xeet boo xam ne bu baax ngeen قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف نون لا وخي اجي وقت نيوم ديديت بولن ري يوسف والقوه في غيابه الجب جلن كو نين ساني كو كوي تي لندمي تين با يلتقطه بعض السياره بوكو ديفه دانا كو فور لن تي اي جيغ سياره موي اي غوار غو خامني دانيو يور اي وارو واي دون جو بري مي توب ديكو كارفان yaltaqiduhu baadu sayara su ko defee dana ko for lenn ca jëgg ya in kuntum failin nem nekk ngeen di def mbokk yonent yàlla yusufa yàlla defoon na ci moom mu nekkoon ku yàlla waajal mu nar a nekk yonent yàlla yàlla def ci moom taar boo xam ni moom la ko yàlla jegleeloon moo gënoon a taaru ci li yàlla bind léegi gis nañu yonent yàlla yanquba teg na ci xam ne kii moo nar a nekk yonent yàlla léegi nag yanquba amatul sago ci yusufa fu muy dem yusufa nga ci wetam nanguwul yusufa bouger taqalikoog moom ci dara loolee nag dema dema dem ba mujj mu frustré doomu bàyyeem yi ñu ne ñun day ah sunu borom yàlla subhanahu wa taala kon lam jëkk a wax néew mi laaj kawteef kaami nettali la ci kawteefu yusufa gaa yi woote réunion ñoom doomu bàyyi woote réunion daa dina daal ñun dañoo jaaxle yusufa ak rakam ji gis nañu ne sunu bàyyi moom la gën a bëgg te ñun mbooloo lañu bu dee liggéey ca toole ñoo war a liggéey ca toole ñoo war a nangam nangam te sunu bàyyi wane na ne ñaar ñi daal la gën a bëgg sunu baay mi ngi ci réer goo xam ne réer gu mag la léegi luy pexe ñu ne nañu rey yusufa benn yoon mu noppalu waaye ca biir réunion ba am ku ne déedéet ñu ne kooku mu nekkoon seen taw di yahuza mu ne déedéet buñ ko rey léegi nañ dem ca teen bee nga xam ne jéggi jépp bu ñu rombee nañ fay root ñu yoor ko ca teen ba dana am jéggu ji fi ñëw buñ ko foree yóbbu ko jaayu ko feneen sunu baay bu ko gisatul dana wëlbate ko ñëw ci ñun gis ngeen loolu it mbokk lañ cay dégge mooy baay yàlla mën na la nattu xëy na sa njaboot am ñoo ci gën a bëgg waaye nag bu koy wonee boo koy wonee da ngay indi noonu seen diggante looloo tax nu man ibnu bashir ba nga xamee ne baayam ba ñëw na ne ko man daal sama doom ji dama koo gërëm dama ko may sama jardin tel yonent bi ne ko waaw su yeneen doom yi ndax may nga leen jardin mu ne ko déedéet mu ne yonent bi ne ko man duma seede loolu ndax loolu day indi ay noono ci biir say doom loolee bi nga xamee ne am na ñu ne buñ ko rey nañ ko sànni ca teen ba rek bu bu ko bàyyi gisatul ah léegi dana dana dana wëlbati ko jëm ci ñun léegi nag loolu doonte ne musiba la dana doon loo xamee ne nii un buñ ci paree daan tuub buñ paree ñu daal di tuub te gis ngeen mbokk loolu musiba loo xam ne seytaane da ciy nax doomu aadama ak njombe gu rëy mun na la def ko soo paree nga tuub tey jii keesa ngi nii nga ne ko tuy lekk muy ay million nga dem nag léegi daal di ne yóbbu nga ci ay moket ca jàkka ja ah yóbbu nga ci sa baay mu aji ji makka jox nga ci ay miskin nangam nangam sambata njaay sa xel dal na nga daal di jaaxaan loolee mbokk seytaane moo ci nax doomu aadama waaye damay def nangam tuub loolee ëpp naa def sunu borom yàlla rek moo xam ndax lii boo ko defee ba pare xol bi tuub dana ci ñëw ndax ak tuub yàlla kay jagleel ko ko neex ñaareel ba mooy ndax doo dee avant sa xel di dem ci tuub loolee jurit bu la ko seytaane man ma ne mukk loolu kon lañ tëj cëriñoo ba dëppoon nañu ne dañu jël yuusuf a sànni ca teen ba ngiree mu sori sunu bàyyi mi ngi noonu
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
qaalu ya abana ñu ne ay sunu baay maa laka laa taamanna ala yusuf lu la ñeel ba dooñu wóolu ci yusufa wa inna lahu la naasixuun ca ñun day nekk nañ ñu koy laayi biir arsil u maana gadan yarta yéen ñu ko mu ànd ak ñun suba mu nekk di lekk ca meññetu àll àll àll ba wa yal ab mu nekk di fo wa inna lahu la xaafizun sikk nekkul ne bàyyi ñun dañ ko sàmm qaala inni la yaxzununi an tazhabu bihi mu ne man day dana ma tiis lool ci ngeen di ko yóbbu wa axaafu an yaakulahu zibu wa antum anhu gaafilun te dama ragal ak till lekk ko till ga lekk ko te fekk ne yéen yéen a ngi koy sàggane qaala qaalu la in akalahu zibu wa nahnu usba ñu ne ko ay baay su ko till ga lekkee day fekk ñun nekk nañu mbooloo inna idan la xaasiruun kon de ñun nekk nañ ñoo xam ne aji perte dëgg dëgg lañu gis ngeen mbokk gaa yi bañ jógee ci réunion ba ñëw nañ ci seen papa ne ko waa papa ñun dañoo jaaxle yow lu tax doo ñu wóolu ci yuusufa nanguwoo ñu dem fenn yuusufa ànd ak ñun te yuusufa léegi mi ngi dëgër bàyyi dañu bëggoon nga bàyyi ko suba mu ànd ak ñun ñu dem ca tool ya dana fa mën a nekk di lekk ci meññeen ca àll bi ca it dana mën a nekk di fo gis ngeen donte ne ne loolu it xale da koo soxla xale dafa soxla léeg-léeg ñu koy bàyyi muy fo du ne rek dañ koy war a tëj ci benn daara wala tëj ko ci kanamu papaam guddi ak bëccëg déedéet yàlla dafa bind xale pour mu mën a bëgg a defaluwu tuuti loolu bi ma xamee ni am na yeneen ci yàlla yaquba gaa yi teg ci na ko ñun daañ ko laaye biir te it daañ ko sàmm yonent yàlla yanquba ne ah man day dafay tiis ci man ngeen di ko yóbbu tiis na ci man lool ngeen di yóbbu sama doom ji may dem duma ko gis loolu muy benn te it yonent yi ay nit lañu woon dañu am ay yéeg-yéeg dañu am ay bànneex dañu am ay tiis comme yeneen tibi alayhi salatu wasalaam ba yàlla jëlee doomam ju mujj ju góor ja di ibrahim lan la waxoon wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun ay ibrahim tàqalikoo gi ñuy tàqalikoo yow day tiis nañu lool doonte ne nangu ne dogalu yàlla la mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam ah cayit ragal naa yéen samay doom ngeen yóbbu yusuf till ga ñëw lekk ko fekk na yéen yéen a ngi ci leneen ñu ne ko ah bàyyi ñun ñuy nekk fukki ponkal ànd ak sunu doom sunu rakk ji seetaan bi ak till lekk ko kon da bàyyi nga xam ne ñun kenn gënuñoo perte waxa waxa waxa waxa waxa waxa wax ba yonente yàlla yanquba wóoluwu leen waaye xamatul lu muy teg seeni loxo mu daal di ah nangu dogalu yàlla ci ñoom mi ngi noonu
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
سنبروم سبحانه وتعالى مني فلما ذهبوا به بني دمي بيب يوسف wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati fi ghayabati al-jubb ñu dëppoo ni nañ ko def ca lënd mi teen ba wa awhayna ilayhi nii lañu wax yoo jëme ca moom yusufa latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun ay yusufa da nga masa nettali sa frère yi jëf jii ñuy jëf doonte na bu ko reegee ñoom duñu yëg ca mooy duñu xam yow yaay kan وجاءوا أباء أباهم عشاء يبكون نون لني ديكل سن باي تا غديغا نيك دي جوي قالوا يا أبانا نينا أي سنو باي إنا ذهبنا نستبق نون دي دني دمون دي راوانت وتركنا يوسف عند متائنا نباي يوسف تسنو آن بغاجيا فأكله الذئب تلغ نيورك لكوكو wama anta bi muminin lana xam nañ ne nag yow dooñu gëm walaw kunna sadiqin doonte ne nekkoon nañ di aji dëggu wa jaau ala qamisihi bi damin kasib ñu daal di indi ca mbubbam ma mooy xamisa ba mu soloon ci deret joo xam ne dereti fenn la qaala bal sawalat lakum anfusukum amra mu ne la am kay mooy taaral na ñeen leen seen bakkan benn mbir fa sabarun jamil waaye man danaa muñ muñ gu rafet wallahu almustaanu ala ma tasifun yàlla day moom lay dimbali ko ci li nga xam ne yéen a ngi koy melal mi ngi noonu gaa yi yóbbu nañ yeneen ci yàlla yuusufa bi ñu demee ba ca teen ba doonte ne kenn ko cay sànni wala ñaar waaye sunu borom mu ne ajma'u ñoom ñëpp dëppoo niñ ci loolu kon musiba ba ci ñoom ñëpp lay dellu dëppoon nañ ci sànni ko fa faddu ca teen ba ñu daldi ko cay yoor ci buum ba mu yegg ca suuf ñu bàyyi ko ci biir noonu léegi nag loolu nekkoon lu metti lool waaye sunu borom yàlla doonte ne yusufa xale la borom bi waxyu na ko xamal ko ne ko yusufa bul tiit bul am benn problème gis nga jëf ji bis dana mës a ñëw nga taxaw ak ñoom di leen fàttali keroog ba ngeen may sànn ca teen ba na sa xel dal loole yusufa ànd ak dalam daal di toog ca teen boobee ah léegi nag gaa yi nekk ca àll ba nekk di waxtaan aka def la leen neex ak yu kenn xamul ba timis jot ba jant ba soo guddi gi tàbbi rek ñu ñëw ñëw a ñëw a ñëw ba jub kër ga rek def ni jigéen yi ndakaaruy def mu ngi noonu dañuy jóge Thiès di waxtaan ci taxi ba waxtaan waxtaan bu jëmee dëj waxtaan waxtaan wàcc buñ demee ba gis na kër gaa nga ne ñu ne waaw ku ne fokk sa musóor nag commencé jooy buñ am ñoo xam ñëw di xalankoo ko dara jooyi fen kese ci bët rek la yem gaa yi it ñëw nañu waxtaan bu jub kër gi rek ku ne daal di yenu say loxo hii hii ñëw ci yeneen ci yàlla yonqub yonqub ne wàllu xew ñu ne ah bàyyi day li xew musiba la li xew day mooy bàyyi ñun yusufa dañoo demoon tegale suñuy bagage da ko yusufa toogal fii ñu ne ñun nañ course nañ course léegi biñ demee di course rek avant ñuy dellu si rek tillu ga lekk na yusufa gis ngeen loole mi ngi noonu doonte ne ni bokk na lu alquran di jàngale foofu mbokk sport islam bañu ko islam da ko bëgg sax ci ay ndaw mën nañ def sport waaye nag ci bi dawaabit ñu fekk dañ koo tëral bu mu doon luy génne awra bu mu doon lu ñuy teg di gañe bu mu doon luy fàdd waxtu bu mu jaxase góor ak jigéen waaye bu dul lii sport dafa baax ci doomu aadama moo tax mu ne ko dañu demoon di rawante bàyyi yuusufa avant ñu ñëw rek ci lëga lekk na ko xam nañ ne nag bàyyi lu ñu mën a wax doo ñu gëm ndax avertiroon nga ñu mi ngi noonu xam nañu lu ñu mën a wax doo ñu gëm waaye mbubb baa ngi nii fekk xamisa bi mbubb yuusufa soloon rey nañ benn bëy bu ndaw jël deret ju sotti ci ba mu tooy xib ñu ñëw jox yonent yàlla yuusuf yankuba mbëm mi ne ko mbuba baa ngi nii tëll ga lekk na ko yankuba yëkkati mbëm mi tubaab yi dañ naan un crime n'est jamais parfait mooy lu boo re nit ñi bu ñu reyee lu ñu nëbbatu nëbbatu dana am loo xam ne rek dana leen rëcc gars yi fàtte nañoo xotti mbëm mi mbëm mi dara sikku ci ñu tur ci deret yankuba xool ko ne ah waaye seen tilli gi bëri na yërmaande de ah ci liggéey rey sama doom ji lekk ba mu jeex ci mbu mi benn xotteeku xotteeku amu ci gis ngeen daa di ne leen déedéet li ngeen di wax dara amu ci seen bakkan moo leen taaralal benn mbir xawma fu ngeen dugal sama doom waaye nag danaa ko muñ muñ gu rafet fa sabarun jamil gaa yi muñ gu rafet moom la jurit de war a tàggat boppam yonent bi alei salaam nee na asabru inda sadmatil ula sa muñ nga yàlla gërëm mooy ba mbir mi tàngee sabarun jamil mooy lan mooy doo wax lu yàlla gërëmul doo jëf lu yàlla gërëmul daa di moom sa bopp gis ngeen daa di moom sa bopp loolee gis nañu yonent yàlla yanqubu loolu la wax fa sabarun jamil léegi nag ci yàlla rek lay dimbindikoo li nga xam ne yéen a ngi koy melal te man ooma kattan ooma pexe waaye sama borom yàlla am na kattan ak pexe wallahu almustaan ala ma tasifun loolee gis nañ ne sunu Aïcha radiallahu anha keroog ba nga xamee ne yonent yàlla bi ñëw na na ko Aïcha yow lii ñu lay jiñ bu dee dëgg la yaa ko def te ngaa tuub nga toroxlu dellu ci yàlla su dee ne defoo ko it nga xam ne yàlla dana la utal génn waay Aïcha ne papa tontul ma yonent bi alayhi salaam muy Aboubacar ne ko ah man kay xamul ma koy tontu mu ne yaay ji umaru man tontul ma ko ah xamul ma koy tontu Aïcha daal di ne ne ma daal di wëlbati ko woon leen gannaaw daal di leen de maa ngi leen di wax ba mu ne mokk lu ma alxuraan lu bëri waaye mu ne maa ngi leen di wax la yaa ngi ko ba waxoon doomam ya lam la ma ca xam daal mooy fa sabarun jamil boobu mi ngi noonu te mooy wallahu almustaanu ala ma tasifun te it radiallahu anha noonu la yàlla mujj ko wuyoo na mu wuyoo yanquba daa di koy wàcceel aaya daa di koy raxasum set wecc laabal ko ba ila yumi din loolee kon mbokk moom la yonente yàlla yanquba daa di mujjee ak mi ngi noonu doomam ya mu lay wan it ne yow doomu aadama yàlla mën na la nattu sa njaboot sa alal sa lu mën a doon waaye ngal la waay nattu ba bu ñëwee fa sabarun jamil na nga muñ muñ gu rafet yàlla na yàlla yombal ko ci ñoom وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa ja'at sayyara noonu la ñëwee jëgg ja muy caravane ba fa arsalu waridahum ñu daadi yónni seen rootkat ba fa abdala dalwa mu daadi yoor baagam ba xawma ndax gone ndakaaru daan ma déggam déet waaw mi ngi noonu mu daal di jël buum ga sànni ca teen ba buum ga ànd ak baag ngir gone yi dégg fa adla dalwahu mu yor baagam ba qaala ya bushra haada gulaam mu ni ay maa ngi woo mbégte benn xale de mi ngi nii wa assaruhu bidaa ñu daal di koy nëbboo def ko marchandise wallahu alimum bima yacmaluun doonte ne yàlla aji xam na ci lañ doon jëf wa sharawhu ay baa'uuhu bi samanin baxs ci ay njëggoo xam ni ñu jaay ko njëggoo xam ne njëggu wàññeeku la darahima macdudat darahima macduda ay dërëm yu ñu lim wa kaanu fihi min azahidin doonte ne ñoom nekkoon nañ ñoo xam ni ñu doy la woon ci yusuf lañu ñu dëdd woon ay mbiram lañu mi ngi noonu wa qaala alladi ishtaraahu min misra noonu la waxee ka ka jëndoon ci misra li imraatihi ñeel soxnaam sa akrimi maswaahu teralal ma wàccuwaayu xale bi asa an yanfaana kii mën na am mu jëriñ ñu aw nattaxidahu walada wala sax ñu jàpp ko def ko doom wa kadalika makkanna li yusufa fi l ard nii da lañu saxale woon yusufa dalale woon yusufa ci kaw suuf wali nuallimahu min tawil al ahadis ngiree ñu xamal ko lan muy firi ay waxte mooy lan muy firi ay gént wallahu ghalibun ala amri yàlla day aji not la ci mbiram walakin aksar annaas la yaalamuun doonte ne li ëpp ci nit ñi duñu xam walamma balaga ashuddahu bam demee nag ba jot kattanam ga aataynaahu xukman wa ilma noonu lañ ko joxee ab atte ak xam-xam wa kadalika najzi lmuhsinin naka niit la ñuy fayee mboolem ñiy rafetal mi ngi noonu mbokk sunu borom jalla wa ala mi ngi ñuy nettali léegi jëgg nañ kër yanquuba am na benn jëgg am mbooloo ña nga jóge woon madiana ci jordani jëm égypte biñ ñëwee ci yoon principal bi gis teen bi ñu daal di yónni seen rootkat bi kooka bi mu demee jël buum gi sànni ci biir ak baag bi rek yonent yàlla yusuf fa ngoy ci am na ñu ne foo boobu fekk am na fa ñetti fan ci biir teen bi gis ngeen yàlla ni mu doon nattoo ay yonentam mu ngoy ci buum gi waa ji yëkkati xool gis muy xale boo xam ne musul gis ku rafeta noonu ci gis ngeen foofu la yàlla mujjoon a jaarale gannaaw ba yonent yàlla Moussa gis ngeen bañ koy for keroog ca ndox ma moom it nañ fa fare woon Yusufa loolee mu ne eey xale bu rafet day mi ngi nii ñu daal di koy nëbb ndax xam ngeen ne buñ ko laajoon waa dëkk ba daañ ko xam am déet waa ñu nëbb ko seeni bagage donte ne sunu borom mu ne maa gën a xam lañ doon jëf loolu it yàlla daf ñu fiy jàngal rek ne doomu aadama koo mën a nëbb nëbb ko waaye ndax mën ngaa nëbb sa borom wallahi koo mën a nëbb rek nëbbul nga nëbb sa soxna sa chef de service sa patron magasin sa kum mën a doon mën nga koo nëbb waaye sa borom mënoo koo nëbb wallahu alimun bima yaamaloon borom bi nee na gaa yi dem nañ ca marché ba ña ngi koy jaay luñ ko mujj a jaayee mooy njëg goo xam ne gu néew la par rapport ak la la mu waroon a jar lenn ci borom xam-xam yi la ca lu gën a logique dañu wax ne ba ñuy jaay yusufa ca marché ba ku ko xool rek dane xale bii de ku ko jënd bu màggee dana tas sa kër lu waral loolu ndax na mu taaroo woon am déet en général jigéen ñi jël mbindaan ci Dakar xam nañ ci dara booy jël mbindaan ba jël mbindaan bu la dàq wala léeg léeg rek bu la sëñ tàmm xoolee xool mbindaan mi soo moytuwee dana mos a def dara ala kulli xaal mi ngi noonu gars yi ñu ne kii ku ko jënd yóbbu sa kër musiba dal la dal gars yi ne kon commencement waxoon nañ ko am cent mille ñu jaay la ko ku am soixante quinze mille ku am cinquante mille ba mujj vingt cinq mille gis ngeen ala kulli xaal jaay nañ ko njëggu safaanu ak la mu waroon a jar ay dërëm yu néew demoon nañ ba découragé ci moom kaanu fihi min azahidin demoon nañ ba jàpp ne kii moom ab chargé lay doon rek waaye du ñu amal njëriñ ci dañ ko mën a jaay léegi yàlla dogal premier ministre Égypte jaar ca marché ba rek gis ko daal di koy jënd fekk moom amul doom gis ngeen bi mu ko jëndee mu ñëw indi ko ci kër gi fekk fa jabaram ja tuddoon zaliqa mu ne ko ay soxna si kii dama ko jënd ca marché ba naa nga ma rafetalal wàccuwaayam ci kër gi ca loolu it mbokk yàlla daf ñuy jàngal ne góor lim man mooy tabax kër di joxe dépense waaye kër bu yaatoo ay jigéen a ko yaatal am déet ngi noonu moo tax akrimi maswaahu looloo tax keroog ba yuusufa neexatul soxna si ci kër gi kaso wala fanaan yi am déet noonu la nar a ñëwee ci kanam tuuti teralal ma wàcc waayam mën na am mu jëriñ ñu wala sax ñu jàpp ko def ko doom comme ñun amuñu doom te loolu dagganoon la ci shara yu jiitu woon amma bi islam ñee da koo araamal sunu borom mu ne loolu araam na ci lislaam yàlla ko jëkk a commencé ci zayidu ibnu muhammad ko yeneen ki bi jëloon doomoo ko muy zayidu ibnu alxaarisa léegi sunu borom mu ne loolu amul ci lislaam araamal nañ ko waaye waaju loolu la waxoon mën nam mu jëriñ wala ñu jàpp ko doom sunu borom mu ne nii day laa daale la yuusufa ci kaw suuf na am wala fi ñu ne iñaan fanqul muur yàllaay maye am déet ndax ñi ñu ngi iñaan woon yuusufa ndax baayam du ko privilégié tey yuusufa nga dem ca palais la dëkk kër premier ministre ñu fanq ko fa jàpp ko fa comme doom comme nañ ko defaloon yeneen ci yàlla Moussa ba firaw na woon bu juddoo nañ ko rey ay daf ne woon ku judd ci bani israel nañ ko rey année boobu yàlla subhanahu wa taala juddul ki ko nar a rey ci année boobu ba pare mu yar ko ci palem comme prince am déet sunu borom yàlla kon mi ngi noonu nii laa dalale yusufa ci kaw suuf ca laa ko xamal nu ñuy firee ay gént te yàlla ko not ci ay mbiram la doonte ne li ëpp ci nit ñi xamuñu su ko defee yow ndawal di rek wékkul ci sa borom jalla wa ala wóolu ko jaamu ko ba ko bokkale dara yaakaar ko lu mu metti metti lu mu yàgg yàgg dana la mos a ñëw ak i xéewalam ndax wallahu ghalibun ala amri borom bi subhanahu wa taala ne mu ni bi yusufa nag màggee ba jot déggaraayam uute nañ ci borom xam-xam ya ñii ne fanweeri at fanweeri at ak ñett ñi ne demoon na lu demee noonu ala kulli xaal dem na daal ba jot déggaraayam nga borom bi nag daal di koy def ab yonent may ko xukman mooy mu nekk ab yonent may ko xam-xam sunu borom yàlla nee na nii laay fay ñu rafetal doonte ne yonent ak la ñuy tuddee nabi ak ar rasul la ko borom xam-xam yi teqale nabi mooy ko yàlla xamal sharia xamal ko ni ñu jaamu yàlla waaye yónni woo ko ci mu dem di waar ab xeet ama rasul nag mooy ko yàlla xamal pare jox ko mission ko demal waar ab xeet looloo tax yonent yàlla yanquba nekkoon na nabi yonent yàlla yusufa nekkoon nabi donte ne boobu mi ngi nekkoon ca njaam nga fële nga xam ne ci kër premier ministre bi la nga xam ne nit moom la sunu borom yàlla wax moo jëli ne lii ma defal yusufa alayhi salaam yéemelewuma ko ci moom waaye wa kazalika najzil muhsinin képp koo xamee ni ni yaa ngi rafetal boo demee ba dëgër danaa la xamal naka nga may jaamoo naka ngay attee doonte ne ak yeneen ci dootul am doonte ne it sunu borom yàlla bokk na ci rafetal googu mooy góor-góorlu jéem a xam e yéen ndaw ñi xam leen ne lu ngeen di mën a dajale ci kaw suuf la ca gën mooy xam-xam xam-xam boobee it la gën ci xam-xam yi mooy xam li wàcc woon ci sa borom jalla wa ala xam li wàcc woon sa borom jalla wa ala da ngeen góorgóorlu jéem koo jàng jéem koo dund loolee bu ngeen pare ngeen jëm koo jëfe rafetal bu dee ne lu aju ci teraanga adduna sunu borom yàlla moo ko gàddu dana leen ko jox yal na yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci bépp julit mbokk sunu film bi jóge ci lu yàlla dogaloon muy réalité boo xam ne ni bu am la lii mooy premier épisode bi ngiree xale yi nga xam ne ñuy suivre ngal la waaye dañ ko wax incha allah ci juróom benn épisode ñi ngi ñaan yàlla fekke loo ñu ko ba baa ñu koy jeexal bind yi ci nekk yàlla wërsëgal ñu jukkowoo ko te dund ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad tene ni am na ko mënum doon laaj ci bismillah naam day wax ci ne pour ñu def leeral ci liñ ne doomoo dafa araam ci lislaam ndax loolu bokk naag nga yar benn xale rek fekk tuddoo ci ak doomoo na am boo gisee ñu naan doomoo mooy arab yi dañ daan dem wax ne diw jàpp naa ko sama doom seedaloo ko nit ñi day nekk sa doom cent pour cent amul différence su takkee jabar amatul droit takk ko soo dee da lay donn su dee da nga koy donn day nekk sa doom cent pour cent sunu borom yàlla nag wëlbati ko ne loolu amul loolu nag firiwul ni ah kay doomu aadama am nga droit jël ab xale yar ko sa kër mu nekk koo xam ne nii dalay da nga cee yaakaar benn dimbali ko wala moom bu màggee dimbali la waaye nag kenn du ko tudde sa doom sunu borom mu ne uduhum li abaihim waaw bu santee njaay nañ koy wax Moussa Njaay bu santee Jóob nañ koy wax Moodu Jóob waaye bu ko kenn jox sa sant bu ko kenn wax sa ci ne yow dafa nekk sa doom dagan na nga sëy sa doomi bopp sëy ak moom ila axiri ila axiri amma nag yar doomu aadama sa kër loolee moom da ngay gis ne ci tuyaaba yi gën a màgg la mi ngi noonu xam nañ ne sunu yonente alayhi salatu wasalaam moo yar Ali ibn Abi Talib mi ngi noonu ndax bàyyam ba Abi Talib dafa ne woon doole moo jël ali yar ko ci këram ba dee moo leen teqale su ko defee kon loolu moom dañuy gis ne lu yàlla santaane la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ndax waa ji dafa doon koo xam ni dafa jiital seulement teg ci benn chemise chemise dafa xaw a yaraax waa ji na ko sa mbagg yi mi nga doon xe feeñ sa julli wérul ala kulli xaal yonente bi alayhi salatu wasalaam daan nañuy wax naan wala yusalli ahadukum وليس على آتقه شيء لا يصلي أحدكم بسبب واحد وليس على آتقه شيء kenn seen bu muy julli ci benn yére fekk dara nekkul ci kaw mbagam waaye loolu buñ koy wax mooy ngir matal la julli gu mat la amma doomu aadama lay yàq julleem mooy diggante jumbo xam ak óomam di feeñ loolu mooy awra góor waaye maadaama diggante jumbo xam ak óomam mi ngi feeñ mi mi ngi nëbbu la ca des loolu ay ngëneel la amma nag bu dee yàlla dafa yaatal yére su boobaa kenn sin buy julli sunu borom dane xuzu zinatakum inda kulli masjid na ngeen jël seen taar kon jullit war na muur la nga xamee ni ni mooy ay mbaggam loolu it la gën lañ koy muure mooy loo xam ne dafa fatt ndax yére bu yaraax kenn du ko muure awra kon dañuy wax ne julli ga moom baax na waaye nag la gën ëllëg gi si biir nay sol yére boo xam ne dafay doon boo xam ne bu fatt la wallahu subhanahu wa taala alam ji wa ala kulli xaal mbokk su doonte ne doomu aadama bi dafa gis ne moom farata muy tiim waroon naa sangu farata amul ndoxum sangu farata nekk na ci moom feebar boo xam ne wurul laal am ndox nga xam ne tiim mooy farataam su boobaa dara nekkul nga tiime sa kër ñëw ci jàkka ji doonte ne léeg-léeg ngay jàng sunu téere yi ñu jàng sunu réew danañ ko war a jokkale ci julli gi moo tax ngay gis ñoo xam ne léeg-léeg dañuy liqaam sax ñu toog ba imam di allahu akbar ñu doog a tiim ci xeer bi doog a jóg taxaw waaye mbokk déedéet doomu aadama bu dee tiim mooy farataam kooku da ngay gis ne waxtu wi jot na mi ngi waajal mën na tiim def ay naafilaam gannaaw ba def farataam loolee da ngay gis ne islam may na ko loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam Ikh- waaw ixtilaaf yi ca borom xam-xam yi amit mooy ndax mën niñ cee julli ñaari farata la gën a lenn ci li gën a siiw ci sunu li ñuy jàng fii mazhab malik moo di ne duñ ci julli ñaari farata donte ne mën nañ cee julli ay naafila léeg-léeg euh, euh, xale yi nañ may baal su ma nee mazhab malik dafa mel ne dañuy jàpp ne lu tax mu naan mazhab malik li tax mu naan mazhab malik parce que dafa siiw fii gaa yi malik ibnu awnas xam leen ne ci ulama ahlu sunna ya gën a jiitu ya gën a mag ca la bokk ndax gaa yi dara gën naa mag nekk imam ca jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nekk gën naa mag bokk ci ñeenti yi génne ji- jiite ngërul islam yi doonte ne nekk ñu ñuy roy mazhab malik abadan ñun li ñu gëm mooy sunna yonente bi la ñu war a roy la doon malik ma ko wax shafi ko wax keneen na ko wax alhamdulilah walilahi alhamdu wala minna am na sax ay conférence yuñ ci def ci wàllu mazahib wala man manziratu sunna yooyu yëpp ko jokkoog sunna wokk bi signaté incha allah dana ko ci jox pour wone ne ne ñun jubluwuñu ne mazhab malik dañu war a tënk ci moom waaye nag bu borom xam-xam yi juyoo ca lii sunu maam yi miin mooy lii waxi malik ji te malik ci borom xam-xam la bala ñuy indi perturbation moo tax ñu naan malik nee na kon dañ naan malik nee na benn tiim duñ ci julli ñaari farata wala boog mazhab malik nee na parce que mën nam sax malik waxu ko waaye li ñuy wax ci suñu télé yi fii duñ ci julli ñaari farata waaye mbokk it bokk na it la nga xamee ne nii lu yeneen ni borom xam-xam wax parce que ñuy wax loolu ñoom dañ ne tiim du lu lay laabal ruxsa la pour nga mën a julli masalan ki ànd ak janaba tey di tiim ndax tiim bi génn na janaba bi génnewu ko dafa tax mu mën a julli ñu ne kon mën nga ci julli farata ak naafila waaye bu beneen waxtu ñooy dañ koy tiimal am ñu ne déedéet yow da ngaa am problème bay tiim tiim nga kon laab nga laab gi lan moo koy dindi mooy luy toj njàpp moo mën a toj tiim googee kon mën ngaa tiim julli ci tisbaar ak takkusaan loolu ay ixtilaaf la diggante borom xam-xam yi donte na ñun lañ cay wax maadaama mbokk julli tiim lu yomb la lool tiim nga julli tisbaar bu takk saa ni tiimal rek ndax dana matt ak du matt moom nga bañ a jox sa loxo mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam xam ngeen li mu wax waaw ala kulli xaal kon mi ngi noonu subhanaka allahum bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk